collègues, messieurs les ministres, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre nomination et vous souhaiter des résultats excellents, élogieux, qui resteront dans l'histoire du Sénégal. Comme je le souhaite aussi, comme ni ma koy ñaanalee président de la République bi fi toog parce que dama ne bu tardé Sénégal moo tardé président de la République dafa jël fonction 2 avril dem palais président i Sall gàttandu ko ay généraux yoo xam ne amaana ci seen biiru xol ànduñoo ak président de la république bi amaana ay magistrats yoo xam ne ànduñoo ak président de la république bi jàppoon nañu peut-être moom place am feneen la waroon doon ñu dalal ko teeru ko tóojal ko maajal ko lu waral loolu constitution Sénégal moo waral loolu donc constitution Sénégal nit amul lu mu ci tànn di ko joxal leneen loo xam ne da koy seppi sànni fële te dafa mel ni foofu la ñu toll tey ci réew mi weesuwuñu woon weesuwuñu li fi ne woon lu tax ma wax ko monsieur le ministre de la justice article cinquante cinq de la constitution moo xam ne moo gën a kawi lépp dafa ne premier ministre buñ ko nommee dafa war a ñëw wax ñu fan la bëgg a jëmee réew mi mu ne maa lànk du ma ñëw parce qu'on n'est pas au pays des institutions fortes, on est au des hommes forts. Et c'est l'homme fort actuel. Et donc mu ne duma ma ñëw président de la république ni dinaa waxtaan ak moom ba fexe mu ñëw ñu ne dañuy jooyanti règlement intérieur de l'assemblée bala muy ñëw mu ne duma ma ñëw parce que faalewu ma leen est-ce que bu généraux yooyu ne woon faalewuñ ko est-ce que bu magistrat yooyu ne woon faale wuñ ko nee faale wuñu résultat élection yi est-ce que boobu réew mi dina nekk ci jàmm jàmm réew mooy tënku ci constitution de la république te président premier ministre euh, euh, kii euh, Ousmane Sonko mu ngi jalgati constitution bi président Diomaye di ko ci jàppale loolu lu doy waar la monsieur le président yow xam nga ni yàgg naa bañ a ànd ak yow fii waaye mosuma dépassé ci kàddu bien que taxaw naa fii nag. jour ba ñuy voté modification constitution bi ne du fi am waaye dépassé wu ma la musuma la dépassé ci kàddu te saa yoo jógee ma boo duggee ma jóg parce que institution nga gis nga nit ñi guerre 39 45 Angleterre ba muy déclarer guerre euh, Allemagne ambassadeur bi dafa jël ay këyit ak njekk ak teraanga dem déposer ko ci Ribbentrop le ministre des affaires étrangères du Reich ba ne ko dañuy guerre ak yow nuyu ko ci njëkk ak teraanga dem reyante bi commencé cooki cooki fin mun na am mu ànd ak élégance waaye président de la république bu demee day yónni con projet de modification constitution bi yow suñu président assemblée di nekk suñu kilifa bien que d'accord uma voté lu la waaye boo nekkee président de tous les députés président bi nekk président de tous les sénégalais yóbbee ñu ko par communiqué porte parole am yabeel weesuwul loolu nañu nangu te même député yëpp cinq cent soixante cinq députés de la république dañoo ko waroon bañ man ba ma nekkee président Macky Sall bu ma d'accordul damay ne d'accorduma loolu moo ma yóbbee woon ci li ma yóbbee maintenant comme lu ñu fi indi mooy comme lu ñu fi indi mooy suppression la ñu fi indi mooy suppression ma sànni ci ñaari kàddu naam bokk naa ci ne woon signé dañu war a supprimer HCCT ak conseil économique social waaye ñun ñëpp dañu jàpp kooroon personne bu gën a yàqu ci institution yi mooy fonds politique yi nga xam ne président premier ministre dafa ni day corrompre c'est pour corrompre te gis nañu effectivement taxaw naa fi nii am na koo xam ne dafa jaay ay liste yi dem ñu jox ko enveloppe xamuñu lu nekk ci enveloppe bi waaye njortu nañ la ca nekk corruption bi mooy jël kenn pour def cartel politique jox ko représentant du président la république ñenn ñaa ngi ne cinquante millions la ñenn ñaa ngi ne quarante millions la pour caser du truc politique mu nga ne damay yàqanal bay tudd ay machine café mais Sénégal fii ba Fuuta fii ba Casamance foo romb làmp yi ñu ngi tàkk bëccëg te am na agence de l'économie et la maîtrise d'énergie malgré tout parce que man li ma waxoon daf ma tënk du waxu keneen moom ma tënk du jëfu keneen moom ma tënk sama wax moom ma tënk naa woote nag. merci la parole Amadou Diallo suivi de Woré Sarr. asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum monsieur le président asalaamaaleykum euh, euh, monsieur le ministre ak seeni collaborateurs. Euh, asalaamaaleykum euh, les honorables députés asalaamaaleykum à la presse et di ziare bu baax tamit fi nga xam ne foofu laa jóge muy Europe du Sud muy waa Italie waa Portugal waa Espagne waa Turquie ak waa Grèce di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal ci seen taxawaay ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ngir Sénégal ak askan wi ñu jàpp ne su Sénégal taxawee